nuy jina ay dëkkandoom nuy jina njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaaram nuy jina ay dëkkandoom nuy jina njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaaram su baali sabal yooyu kaay la sa jaara na ay dëkkandoom nuy ji na anta njaay mbokkam taala anta mamaaram sobalee bu sobalee Anta Njaay mam bu so jaara ñu jina ay dëkk waaw loolu maa ngi seen ak yaatal ndaxte boo gisee ci biir euh, baas yooyu gis noonu euh, ndax yàlla dafa dogal euh, ku wax màggal dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a def ba pare lépp ànd si ni ni ko war a defee ni nga ko war a defee nag mooy dal yi gis noonu am na dal yi nga xam ne mooy mbokki Baay Faal am na ñi nga xam mooy mbokki Yaay Faal am na it euh, baas boo xam ne mooy baas bi nga xam moom nañu duruse alxuraan ak xasida yi euh, am na it ba tey euh, waañ wa nga xam ne li nu bëgg bu yàlla defee jàmm gis nga ko góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ne fi ngay nekk du bokk ak sa morom fi mu nekk ba si sax wanag yi jigéen ñi seen wanag góor ñi tamit seen wanag jàppukaay yi noonu nañ ko programmé ngir loolu boo gisee ñu ko def dañuy bëgg nit ñi góor ñi ak jigéen ñi bëgguñu ñuy toog di bokk benn jataay ndax bu ñëwee fii Porokhane euh, di màggal si genn jigéen gu mel ne na Jaara Buso euh, màggal gi dañ ko war a sellal bu baax a baax a baax xam kin fen di moom mooy kan muy Soxna Jaara Euh, ak jaar-jaaram yi am yëpp dañu doon loo luy tënk lay doon euh, li ko may daal mooy jaamu yàlla rek jaamu yàlla daal moo tax tey bis bii nii euh, bari na góor ñoo xam sax amuñu ko kon mooy jenn jigéen joo xam daal moom màggal gi muy maam jaara Bousso waaw li ñu bëgg daal mooy image yi koo gis xam ne ñun dañuy màggal te ñun këfuñu caaxaanuñu ndax boo xoolee lépp yàlla dogal ne ah, taarkalla macha allah ndaxte juróomi nag a ngi nii te nag yi nag bi boo ko xoolee ah, bokkut ak nag yi nga xam ne rek daal nag yi sàmm la nag yi ñu jënd ñun ñag yar la ñuy jënd euh, nag yoo xam ne yu baax lay doon ndax dañuy bëgg euh, bisub soxna jaare ku fi ñëw ba egg si daal bii eh, doo manqué dara doo jaaxle dara euh, di wax nag képp ko xam ne yaa ngi dégg sama kàddu mbokki Sénégal mbokki àdduna bi ngeen xam ne daal ñun ay taalibe yoo xam ne yooyu Sëriñ Tuubaa di fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa di ko xitmaal fii nag si Porokhane am na boo xam nag dal bu mag la gis ngeen ko ah, duñ leen ko wax ndax da gis ci image yi eh, xetma gi nag mooy eh, joxe berne rek ñun mooy suñ programme fii ci Porokhane bëgg na nag képp koo xam ne yaa ngi dégg suñ kàddu eh, te man see bokk nga ñëw bokk ci ndax nekk na loo xam ne am na solo lool képp koo xam nag am nga benn ndimbal boo xam ne boo fi mën a joxe booñ ko joxee dana ko defal ci biir màggal gi dëgg la lépp mat na ndax ñu ko siq ay jàmbaar leen ay borom Pastef leen tamit ay borom baax leen waaye nag lu baax euh, des ko yaatal kon nag ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn euh, di ñaanal nag sunu sëriñ sëriñ Mountakha Bassirou xalif général kullu murid euh, yàlla sunu borom euh, yàggal ko fi lool ba naal yi mu am mu liggéeyal ko maam ju baax ji ak way jurum ba Cheikh Mouhamadou Bassir borom Poroxaan a ñu ngi koy ñaanal mu ànd ko ak rakam yi ak taalibe yi ak tamit mbooleem rek axlu lislaam te lépp daal lu fi waaye jaamu yàlla fii si Poroxaan yàlla na ko yàlla nangu bu ko nangoo nañ ko fulal dencal ñu ko fi xam daal yàq eggu si barkeb borom bis bii muy soxna jaara ndax bis bii li fi sëriñ Tuubaa waxoon leer na nee na képp ku dem Porokhane ah, bu ma la fa jiitut boo fa toogee man daan la fekk man Ahmadou waaw kon loolu ñëpp tamit ñu bàyyi xel ndax bis bi eh, nekk na bis boo xam daal Serigne Touba mi xam ne moo tax ñuy def bis bu mu fonkoon la bis bu mu bëggoon la bis bu mu joxoon cër la bis bu mu joxoon gëdd la kon ñëpp nañ ko jox cër fonk ko respecté ko respecté mooy bu ñu dikkee ñu sellal eh, liggéey fi xet ma dem ñibbiwaat bañ fa def dara loo xam ne rek da doon ab nuy jinna njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaaram sa baali baali yooyu kaay la anta njaay maam bu sa jaara nuy jinna ay dëkkandoom nuy jinna njëkki jigéenam soxna anta njaay nuy ji ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaram